leen jàmm am nañu mbégteeg bànneex ñoo teg yéen ci seen émission sorti ci rajo télévision bu Walfadjri euh, tey nag euh, ñuy euh, nekk ak nga xam ne moo di suñu gan di honorable député Aïda Mbodj madame l'honorable député ñu leen nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Astou di leen nuyu di nuyu waa Sénégal di nuyu waa groupe Walfadjri di nuyu di ziare sunu sëriñ sunu xarit Sidi Lamine Niass di leen gërëm di leen sant di kontaan ci recevoir leen. ñu lay gërëm di la sant suñu euh, gan nga xam ne nag euh, moom moo ñu dalal tey di euh, honorable député Aïda Mbodj ku mu doon ñu ci gërëm di sant ak nga xam ne moo di Seydina mar Ba mi ngi ci àndal. kanuk sorti tey ji di meeru Bambey soxna Aïda ay Aïssatou Mbodj moo nekk ci sama tour moo tax assemblée nationale sax ñuy wax Aïssatou Mbodj man waalo waalo laa bu juddoo ay Aïssatou wala Aïda Mbodj juddoo Bambey jàngee fa demuma université formation professionnelle laa def école normale option préscolaire. ba nek jangale kat way loolu taxout mu bàyyi jàng. wéeruma sama allo parce que inscrire na université Kentucky pour wut PhD en women studies. Euh, manam lepp lo xam dafa jëm ci jangale jigen politique ay dembo def ci juddo yaroo ci magge ci ay ki ay way juram. euh dama juddo ci famille bo xam politique rek la dama ñew rek dama judd rek fekk leen ñuy politique wa man sama yaay mo recevoir Senghor en 1945. sam papa dafa mës a nekk conseiller municipal. président Ablaye dafa jël réew mi rek Cheikh Mourtala Fatick am nañu ko fekke dama ñëw di ko siyaare benn bis rek deux mois après mu jox ma photo Ablaye Wade bu Ablaye Wade su joote ci moom wax ci gémmiñu boppam ne ko kii de sama doom dama la koy dénk daal ne ma jàppale ko ngir yàlla te li tax duma bàyyi Ablaye Wade kooku gisatuma ko te dootuma ko gis sama sëriñ la sama xarit lu waral ñu lay woowee gaynde mbay bi gaynde day régner en maître damay reñe en maître Bambey gaynde day fàdd ku ñëw bëgg li ma yor bu ma neexee ma jox la ko bu ma neexul duma la ko jox. gannaaw politique bu muy def. ay dëmbooj naka lay dundee ci biir këram. mën naa togg jonge ndaa damay sëy. nee nañu da nga pànk. waaw bañu ma ko parce que pànk ji bi li Sénégal tuddee pànk mooy dañu bëgg rek waddal la euh, te ku waddal sa bopp kenn du la mu ngoog seen émission sortie soxna Aïda Mbodj di jàkkaarloog ajaratu Ndeye Astou Gueye jaajëf euh, Seydina Omar Ba ñu lay gërëm kooku bon mooy suñu gan nga xam ne euh, moo di gan gu ñuy dalal tey euh, di soxna Aïda Mbodj madame honorable député ñu am mbégte loolu jàkkaarloog yow ni ñu la ko waxee ñu tàmbali nag ci actualité bi nga xam ne daanaka moo fi am di seen marche xamu seen meeting ñi ne marche la ñu doon wax bu yàgg-yàgg ba ba coow li bëri marche marche marche mu jigi ñu leeral ne meeting la ba ñu jàpp ne seen meeting bi nga xam ne PDS war na ko amal

ngeen mën a dem marche balaa ñu ñëw ci euh, autorisation bi. jërëjëf Me Abdoulaye Wade Bon dafa indispensable bu bu fu nekkulee daal. incontournable waaw incontournable. jërëjëf Ndeye Assou Ndeye Assou maa ngi lay gërëm ci li nga ma laaj ndax dina ma permettre benn ma leeral. Mhm. kenn mësul wax marche. ñi amoon yéene tere ko kay ñoo bëgg indi marche parce que Ndeye Assou lu nit ñàkk ñàkk xam sécurité xam ne sécurité euh, meeting boo xam ne nit ñi dañuy toog. kuy yak ñu seen la ngay ñew kuy def ñu seen la dañuy tok musul wax wax musul bok ak marche mhm. marche lu nekk mën na ci dugg musiba bu nekk mën na dogale marche musiba bu nekk mën na rax marche mhm. ñun mësuñu wax marche parce que ñun benn kilifa la ñuy déglu benn voix la ñuy déglu koku la ñuy di ay soldaram yo fu mu diir bu ko rek dañuy jam ñun bu ko diiree rek duñu nekk balam dem fay diir rek ñu jam dañu tok comité directeur mu ñeu président ko bopam té dafa bi mu c'était le 23 avril lañ ko le 25 avril mu wacc ci dëkk bi di vingt bi mu ñëwé ñu euh, euh, sénégalais yi di wax ak mom mhm. ko mam juum tontu ba mu Ndeye Astou 16 fois la ñu demandé autorisation ñaari autorisé nañ ñu ko boobu waa Wade ñëwagul mooy dakaar ak Pikine. ngeen demandé autorisation pour def lan. pour def rassemblement rek marche wala ñu def rassemblement wala ñu meeting. Mm-hmm. ñaar ñi en dehors de kii benn bi Dagana la benn bi Mbacké 12 fois ñu di ñu ko tere. douze fois yi bokk na ci bi Ablaye Wade yegsee ci dëkk bi. Hmm. ni man kat sénégalais am na luñ ma laaj dama leen di tontu. Hmm. ñu ne ko du fi amee mu bàyyi teg ci suuf. mu dem dellu si ñuy def anniversaire parti bi xam nga ni PDS le 31 juillet. Hmm. de 74 la am récépissé. mu am 40 ans ren. Afrique yëpp di ko feeteeg moom. mu ne dafay dafay dafay woote pour wax ak sénégalais ñu ni ko du fi amee. mu ne après élection locale yi danaa wax ak sama waa parti ñu ni ko du fi amee. waaw ba kañ léegi moom mu ni dinaa def meeting annoncé ñu ko mësul tudd marche ñun mësuñu tudd marche meeting la ñu mës a wax te meeting la ñuy def incha allah le 21 novembre yàlla nañ ci yàlla yóbbu. Mhm. maanaam nag ndax Abdoulaye Wade mënta ñàkk loolu euh, waxin la ku am kilifa ku ne sa kilifa dimbale la dimbale goo xam ne tayelul looful. yox yoxiwul ñëw toog ci sa kanam ku ko am jël. Mhm. mais bu fee nag bu ko bàyyi woon ak ñu ñu def ko. mais nag moom mais moom yàgg na yàgg na toog euh, Europe. mais euh, dañuy dañuy gis ne à chaque fois tekk tekkaaral dañ koy nemmeeku. ci biir ci biir PDS day ma ni day ma ni comment di yaay. bi mu toogee aussi benn meeting nañu benn yoon obélisque. mais waxtu ñu laajee ñu ñu meeting nañu benn yoon obélisque marché nañ ñaari yoon. mais góor gee leen di may fit PDS. loolu mënul ñàkk xanaa xamuloo on bu xoolee doon rek mu suur. waaw mais bu fekkente ne on bi aussi dafa dem ba nekk ba nekk mag def def def li mu def ci wàll politique. waroon nga ko gis prouver prouver li muy li muy prouver. berki biig bi mu wàccee vendredi. Hmm. nday as waroon nga ko gis. dafa mel ni xale. <laughs> parce que kenn ku nekk da nga am lu lay dundal. Eh. bi mu ñëwee ba gis militant yi. loolu moo tax bi ma déggee ñu ne am na ñu naan nit ñu bari nekk ñu fa ma ne dëgg-dëgg pale bi am na ay journaux. parce que nag ku xool loolu jour gendarme yi ci seen bopp sax mënuñoo woon téye nit ñi. Mhm. amuñu woon possibilité tëj ñi te jël see am nañ renfort. Mhm. Euh, waaye xam xam nga nit mën nga mën nga jàpp ne peut-être yow amoon na ay nit mais euh, les observateurs comme on dit jàpp nañ ne amoon ay nit te loolu ñu ñu bëri gis nañ ne aussi dafay junj ne seen un million jàpp doomu aadama yi ngeen jàpp mën na am ci ci meeting bi que doo leen ko am. am Abdoulaye Wade dafa am lu mu warloog ñun fii mu toll moo de def naan lii moo war a am mhm. ñun PDS njukkal ko opposition bi njukkal ko force vive yi njukkal ko euh, Sénégal ñi politigul ñu dara njukkale ko loolu parce que ñi mu bëgg a waxal bu waxee ak ñoom danañ ko danañ ko démultiplier dinañ ko wax à travers le pays mais ñun nday xa nday asu man rek su ma bëggoon un million de personnes am ko mais démb ñun kenn mobilisé wul kenn ku ci nekk da nga dégg ni góor kaa ngi ñëw rek da nga war a dem teeru ji ko. Mhm. guddee gi donc événement bi c'était pas. Euh, du loo xam ne dañ ko préparé nit ñi war a ñëw. mais su fekkoon dafay ñëw ñu di ko préparé mu nekk tant de ñu war ko évaluer mais responsable yi ñoo fa nekkoon. Mhm. mais waxtaay bi nag euh, yàgg na coow li bari te ci euh, seen seen meeting bi nga xam ne moom ngeen war a amal 21 21 novembre ñu ñu gisoon ne. gouverneur ci boppam parce que interdiction en général préfet lañ ko daan dañ ko daan dégg mais bi yoon euh, ñu dégg gouverneur bi ci boppam wax ko ministre de l'intérieur it leeral ne du am ñu dégg ci kilifa yi ci na mu gën a sore ñoom ñëpp leeral ne meeting bi euh, meeting bi du am euh, médiation yi nga xam ne mujj na ci am ci mujj gi ñu gis si lam ñas dem ca ca ca ca palais ba euh, war a gisa gisewaat aussi ak ak waa PDS googu coow lu bari jëm ci seen ci ci seen meeting bi. ndeesu boo demee ci teen ci ñun ñu dëkk Bawal coow li nekk ca teen ba rek ñu amul baaga ko fa waral mais ñun ba ñu waxee suñu meeting décidé ni suñu meeting bi dañ ko def ñun coowuñu diggante bi nag bu ñu nee dama naan bu ñu nee ndax bul fàtte ni gouverneur bi. le vendredi 14 à 19h47 19h47 tu guddi la wax de ma defoon le gouverneur dit que këram GMT il na communiqué ni moom mosul wax interdire Wow, hmm. waaw te interdiction disons ñu di wax ministre de l'intérieur mu ne du am ñu di la déclaration de politique générale ku nekk wax kenn démentirul ba mu ëpp doole te loolu. xeyna yalla dafa ne woon rek amna Pas lu muy woné parce que yalla man la delloo lepp ndax kéro bi nga xamé ni samedi jotna ñu né table de la presse président de wuy ji woowuñu Sidi Lamine wante nak ñass ni mu juddo rek non la défé parce que doomu soxna la légui nii bi ngay ñëw xam nga ni seede nga né ma ngi wax ak ancien président euh, assemblée nationale bu Gambie nga xam ci mom la bok parce que Fatmata Zahra lañ ko tuddé Fatmata jaxum pa bang koy nuyu Fatmata mais dafay nettali médiation Sidi Lamine de la même du Sénégal muy fierté ñëpp kon kooka su fekkee ni toog na ba xam ne fii mu jëm doomu soxna yi mu bokk réew mi seen xel dalul ndax ñaari position yi nga xam ne ku nekk nga campé te je sais ñun coow li indiwuñ ko li tax indiwuñ ko ñun am nañ suñu bëgg-bëgg leer leeral nañu ñun benn leeral rek benn rek moo ci bees moo di li ngeen daan tere de ñu di ko nangu bii bokk ci bii tere dina am ñàkk tere dina am loolu de moom wax nañ ko moom. Mm. te loolu it mooy dëgg. ñu nekk ci di wax seeni nit di wax te nag lenn da ngi ci ñoom loo xam ne lu jar a la moo di bu ñu commencé ba wax dara ba ñu xam ne lii la ci président bi décidé ministre yi dootuñu am liggéey ca loola la ñuy wax député yi dootuñu amati kàddu askan wu ñu war a yóbbu assemblée ci loola rek lañuy wax tant mieux pour ñun. mais loolu est-ce que du du du fi yàgg est-ce aussi du newul woon doxalin du PDS. parce que mais PDS euh, amoon nañ leneen lu ñuy def. lu dul jël ay météo bu Ablaye wax tamit bu métti Ablaye Wade daan wax ñeneen ñuy topp lépp loolu la ñu. waaye du tee dañuy liggéey de ñun. ñun ah, parce que Sénégal yi ñu fi dara. ñoom àtte wu ñu xuloo wu ñu xeexu ñu ñoom ñu ngi la nekk rek. ñoom moom ñoom à la limite da leen di toog sax ba mu yàgg xam ni ku xuloo ñoom yaa leen tooñ parce que ñoom euh, assemblée national ge député ya fa nekk lu ñu doon doon xale du ñu yër seen sax document yi leen jox ñoom daal bu ñu soloo ba ñëw toog ñu ngay gaawantu di déglu yow loo wax ba ñu gaaw tontu ko gaaw. d'accord d'accord donc li nga wax ci médiation Sidi Lamine dama ciy dellu si. profité ci nag remercier force force vive yi nga xam ne ñooy force vive yi xam ne ñoo nekk ci dëkk bi te politique guñu waaye nag Sénégal rek moo leen ñor parce que restriction de liberté waratu fi am day astu ay nit dañ ci xeex ay nit dee ci. ay nit dekk ci lu nekk te Sidi lol dafa bokku ci lo xamne daf ko mësa xex lu leer la wax daf ne bis buñu autoriser meeting bi mom du ca dem buñ ko autoriser du ca dem parce que suñ ko autoriser loolu moy politique yi ñoy def sen ñoy dérouler sen feuille de route et que mom loolu du affaire donc lu leer la wax wante nak rew mi ñor nañ ko. Mhm. kon la ca wax xew yépp ak stratégie yañ ci développer yépp ak sen mbokk wa presse ñu jël ni bu meeting bi buñ ko waré interdire nañu wax ne ñun duñu ay compatriotes. parce que francophonie bi day ñëw loolu yépp yëg nañ ko. ah loolu loolu fu mu amee. ah euh, euh, Macky Sall. ah Macky Sall da doon dajeeg journaliste yi rek. Ah, daf doon dajeeg journaliste yi rek. amul benn objectif di saafonte rek di benn objectif. ah xibaar ñu lu fa xew ma Seydi de woowuñu ko ci bëggoon naa nag ñu woo ko ci ndax man kat sama Seydi Lamine Niass mi fu ñu ko woowul dina ma naqare. ndaxte moom témoin de l'histoire la te dañ dafa fekkee démb fekke tey. 1996 man xamna ci dara ndind la ma fekkoon. Cheikh seigne sëñ Modou Boussa Dieng ber wa PS ci ben nek ber wa PDS ci ben ngax ndax ousmane euh, euh Ngom moy ministre de la santé nekkal PDS ci bir gouvernement élargi ba fi amone d'accord waye ba ma fekkee ci bir ka daf ma gor gor am nga avenir politique. té nag ki am xam-xam moy ko xamni bu guddi jotee mu fi la kër yam bu jant bi né dang ngi yam foofu sii di kat am na xam-xam jarna bolé kat.

Sidi est-ce dañuy fàttaliku rek Sidi bala koy kenn di sikk xam nga maa ngi fàttaliku 96 lu xewoon. Mm-hmm. mais du ñàkk luy luy luy génn ci Walfadjri lu ma naqari mais du ma réere a réere 96 kenn ku nekk da nga waroon a xalaat ne